alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. bisimilah asalaamaaleykum. Serigne Mbour asalaamaaleykum. Euh, kuntu aarifuka batalan qawmiyan kuntu aarifuka batalan ijtimaiyan kuntu aarifuka mujahidan fi sabili qawmika wa fi sabili watanika walakin lam akun aarafu anna waraa kulli hada lam akun aarifu anna waraa kulli hada rajulan aaliman yutqinu algarabiyata wa yataxaddasu biha kama lam yakun marra fi umurin uxra gayra haza xaqiqa saidna bi dalika wa anta aydan yajibu an tasaada bima qaddamta li qawmika li anna man laa yu man qaddama qawmahu xayran li atfaalihim wa li kibaarihim wa li mara wa li amraat wa li mardaahum wa li tujaarihim wa li nisaa'ihim xaqan faqad qaddama min alxayri maa yumkinu an yuqaddima insaanun ilaa axiihi al insaan donc bon war ngaa bégee sa bopp parce que def nga loo xam ne bégloo na nit ñi ndax li nga dégg ci jigéen ji wax ko yeneen ñi wax ko yëpp euh, dafay génn nit boo xam ne nit bu ko jar la nit bu ko jar la nit itam la boo xam ne nit ñi jaral nañ ko ko lu nekk mën naa ko def pour nit ñi ndax ñu génn ci coono ndax ñu génn ci ñàkk ndax ñu génn ci ragal ndax ñu génn ci euh, gëm ne mënuñoo def dara waaye mën nañoo def dara te def nga dara def nga dara fii ci Kaolack am na ñu fi ñu fi jaar am pouvoir trop nga xam ne lu leen neex ñu def ko Kaolack waaye def defuñu Kaolack dara waaye damay tiitaroo toujours ne ñun ñu jógee ci daara ji boo demee suñ euh, ci wasitatu euh, ci wasitatu Serigne Mboup euh, dëggalal nañ Kaolack loo xam ne moom la daara yi bëggoon ci Kaolack mooy ne ñun ay nit ñu jàng lañu ñun ay nit ñu civilisé lañu ñun nit ñu mën a tabax mu jëm kanam ci ñooñu lañ bokk loolu yëpp dimbal nga ko boo ñu ngi lay ñaanal yàlla toujours yal yàlla gën la yokk yal yàlla gën la dagërël yal yàlla gën la may fit yal yàlla gën yokk sa daraja ndax sa daraja ak sa fit ak sa xam yëpp dafay dellu rek ci population bi nga xam ne tànn nga leen pour dëkk ak ñoom ñoom tamit tànn nañ la pour nekk ak yow donc ba ñu ngi lay gërëm lool ci domaine boobu. beneen yoon Cheikh euh, Khalifa mus na oote te euh, daaru mitéen ne dafa bëgg ñu waxtaan ci magam yu jigéen yi Fatimata Zahra ak euh, Roqayatu ak euh, Seyda Mariam ñu ñëw gaa yi waxtaan nañ waxtaan yu bëree bëri di parole bi agsee ci man di parole bi agsee ci man dama wax ne Cheikh woo nañu pour ñu waxtaan ci ay jigéenam waaye defu ko pour tiitaloo leen defu ko pour tiitaroo leen defu ko pour wax nit ñi ne leen sumay jigéen nii lañ mel non daf koo def pour jàngal Sénégal nii yàlla mën a defee karaama ci góoru Sénégal noonu la mën a defee karaama ci góoru ci jigéenu Sénégal ah dafa mun a dafa bëgg a jàngale ne jigéen ñàkkut référence boo xam ne mun na dellu ci moom ci mbooleem delluwaay yi nga xam ne dafay dolli leen mu jëm ci kanam lu dul boo delloo ci jigéen ñooñu di nga ko fa fekk di nga fa fekk boroom xam-xam di nga fa fekk mujaahida fi sabilillah di nga fa fekk euh, mu murabbiya di nga fa fekk façon nit jigéen boo gis ne mi ngi liggéey ci maydaanu taqaddum boo nee da ngay fekk ni ñoom ay leader lañ ci ay xu ay ay qaaidaat lañ ci def nañ ko wane nañ ko. mu tax euh, euh, bu bu si tey bii itam ñëw pour tiitaroo Seyda Fatimata Zahra parce que suñ tiitaru. moom ëpp na foofu passé na foofu passé na foofu mais dañuy ñëw pour jàngalaat jigéen ñi ne leen euh, jigéen démb ci senegal fu góor daan àgg àgg na fa ah daan àgg àgg na fa lu góor daan tabax tabax na ko lu góor daan liggéey liggéey na ko loolu lañ bëgg a génne ci moom moo tax ñu tuddee ko centre pour nit ñi xam ne ndekete jigéen itam li baay wax yaa ayyatuhal banaatu zaaximna ila naylil ula ama bi abdaanin fala ah, ci moral yu kawe yooyu nga xam ne foofu la madrasatu Cheikh Baye ma toll ci jigéen madrasa boobu ci la ci tey ñu tuddee centre bi du pour tiitaroo ko parce que moom kese moom kese kese tiitar la ah du pour màggee ko parce que moom kese kese màgg la donc bon màggaluñ ko tiitaroowuñ ko mais dañuy jàngalaat beneen yoon Ansaaru Diin dag ne référence mu amee ci góoru Sénégal noonu la amee ci jigéenu senegal ah donc ñu ngi leen di gërëm ci loolu ñu ngi gërëm beneen troisième gërëm euh, Cheikh Matiyan parce que Ansaaru Diin sonn na ci lool ah pour tasaare ko pour nit ñi déggaat risaala Ansaaru Diin am na benn jamono bu nga xam ne Euh, xam naa ay xale yoo xam ne seen dund yëpp ci loolu lañ koy jeexal Lopez euh, euh, professeur Guèye ah professeur ah Cheikh Tidiane Guèye Amar Samb Amar Samb ak ñoom ñëpp ah, fu nekk ci Sénégal tukki nañ fa pour yeewaat ci xoli nit ñi ansaaru diin bon bu fekkee ciir seen dox boobu yëpp buñ fi nekkee tey danañ yëg ne seen ndox boobu am na njëriñ parce que am na nit ñoo xam ne juddoo nañ ci te seen itte mooy ne mën nañoo def hmm? comme comme Obama we can mën nañoo def te yéen a ngi def yéen a ngi def ci côté économique mi ngi nii ci suñ kanam yéen a ngi def ci côté yare mi ngi nii ci suñ kanam yéen a ngi def ci côté euh, jàngale yéen a ngi def ci côté social parce que nit ñaa ngi koy yëg nit ñaa ngi koy xam yéen ko def itam ci coté am discipline ah am discipline koo war a topp da ko war a topp koo war a déglu da ko war a déglu koo war a topp ndigalam da nga war a topp ndigalam amul amul laajte amul werante ndigal ñëw na rek damay def suma yoon borom ndigal li juum na juumut moom la intéressé ci moom lay daanu waaye du ci man man dañ maa jigal rek def na loolu Euh, euh, euh, Cheikh moo génne ne jigéen ñi mel noonu am nañ ci fiir ansaaru diin donc man mënuñ koo ñàkk gërëm ci taxawaay boobu nga xam ne bu ansaaru diin bi yëkkati ko waat ba am ampleur bi dëgg-dëgg loxoom bu feeñee feeñ mi ci biir. ñu ngi gërëm suñ mbokku Mbacke naka Mbacke. maam Cheikh Mbacke du du c'est la première fois mu ñëw du ñu fekkee suñuy jotaay. yàgg na fee ñëw yàgg na fee ñëw ñëw na ci dëj bi ñëw na ci yeneen ñëw na ci yeneen ñëw na ci ay mouvement yu bëri yoo xam ne dafay ñëw pour woon ñu ne voilà benn rek la ah, amul Mbàkke amul ñes yàlla moo am ak yónnante ak lislaam jeex na ci lañ nekk nu neex nit mu sant waaye lii ci lañ war a dimbalante wone na ko bu baax a baax ci ay yoon yu bëree bari tey ci li mu ko daan wone rek moo feeñaat tey donc mbooloo mu mbooloo mu jotaay bu kawe la boo xam ne ay leçon historique ñi ngi si boo xam ne ay leçon yoo xam ne ñu ngi koy jàng léegi bu ñu jógee fii lan lañ war a def xam nañ ko mooy war nañoo xam ne ñun mën nañoo yokk ñun mën nañoo dolli ñun mën nañoo tabax bu ko defee mu nekk ay leçon yoo xam ne dañ ciy continuer di liggéey rek ñu ngi leen di ñaanal yàlla euh, tawfiq ñu ngi leen di ñaanal yàlla tawfiq ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yëkkati euh, nisa ji ji nu mu tudd jigéenu ansaaru diina ah. jigéen noonu ngeen tudd ah jigéenu fayda tijaniya ñu ngi leen di ñaanal jigéenu fayda tijaniya ngeen nekk modèle modèle pour jigéenu Sénégal jigéenu Sénégal góor lañ bu baax a baax jàng nañ bu baax a baax mais culture yi nga xam ne moo fi gën a siiw dafa réeral ñu bëri bañ fàtte seen bopp donc war nañoo am nit ñi mën a dellu siwaat ci seen bopp xam ne seen culture bi nga xam ne moom lañ am ci biir Sénégal moo gën a culture bu ñu mën a rootaane ah ndax culture ñu mën a rootaan yi du def lu génne leen ci seen bopp doo ñu ko xamati ah bu ñuy sol lu leen neex seen yoon nekku ci xamuñ ko bu ñuy def seen karaw leen neex seen yoon nekku ci xamuñ ko bu ñuy ah, ah, loolu yëpp bu ñu koy def seen bopp parce que dañ ko xamul parce que culture bi am moo tëddee noonu ah donc man bu ngeen amee lu ngeen di wone ba léegi pour nit ñi jàpp ci woon ne mën na nañoo delluwaat suñu bopp te du ñu teree développe bu ñuy teree teree am développement parce que déjà ñu ngi économique ak mooy développement ñu ngi ci ñu ngi liggéey bu baax a baax euh, loolu yëpp euh, euh, ay ay misaal la yoo xam ne ñu ngi yaakaar ne dinañ ko jàngee si jotaay bi delluwaat gërëm Serigne Mbu dëgg-dëgg sa tànk ci kaw la rafet na sa tànk ci Sénégal yëpp itam rafet na sa daara bi nga jàngee fàtte woo ko la nga jàng ci daara ji itam fàtte woo ko te terewul li nga xam ne yaa ngi koy def ci àdduna yaa ngi koy def yal na nga gën a dëgër yal na nga gën a dëgër yal na nga gën a am kattan ah pour kontaan ci Kaolack pour kontaan ci Sénégal yal na yàlla defal loolu merci. jërëjëf. alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah.